يا مكرم ضيفي جارا كان وزارا يا مايا أخادم من قبل أزارا waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci euh, waxukaay yi ak yi nga xamante ni mooy jumtuwaayu xarala yi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaar bu baax a baax di leen nuyoo fii ci jumaay yi Khadim Cheikh Ahmadou Bamba ci seen bii nga xam ne mooy MKTV di télé jumaa ji di ñëwati tey di ñetti fan ci weeru Ramadan dëppoo ak juróomi fan ci weeru avril bii nga xam moo di 2022 ñu taxaw ak waa académie Minan nga xamante ni ñu sopp jumaa ji lañ ñu am relation ak daayira mu xadamatul xidma lañ ñu bokk liggéey bi lañ jaxasoo ci lool te rafetal ko loolu nag sëñ maam Balla Mokhtar ak sëñ Mokhtar Seck ñoom ñëw nañ teewal fi mboolem waa Académie Minane ngir yëkki ay kaddu yoo xamante ni ginnaaw bi nga xamante ni daayira Moukhaddamatoul Khidma am na mbégte kontaan bi leen fii nga xam di waxtaan yi biñ dégloo waxtaan wi ñu ànd dem xewlu ci xewal yooyu yëpp nag jombul am na ñu jàngate relation bi ak melokaan beeg yooyu yëpp xëy na incha allah sëñ maam Balla kaddu gaa ngi noonu yaa ngi naan direct ci MKTV. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kàddu yi doom kàddu yi cant rek sant borom subhaanahu wa taala euh, sant sëriñ Touba bu baax a baax a baax ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fa loolu te euh, liggéey bi nga xam ne moom la Moukhaddamatoul Khidma di liggéey euh, dafa niroog bi nga xam ne moom la waa mi académie Minanul Baaqil Qadiim di liggéey muy mbooloo moo xam ni kër Serigne Bachir la nekk di mbooloo bu yaatu waaye am ca wàll la woo xam ni dañ ko tuddee comité scientifique.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 di leen ci gërëm ak mboole mboole ma xam ne ñoo nekk foofa di ñaan li sa borom wéyale ko bëgg nañ mbooloo mi gën a bari lool waaye xam ngeen ni comme koor gi programme bi daa bari fi ñu taxaw a yaatu te ñu leen di soxla bari ci yeneen bari yu mel nii nde kon bari moo fi teew ci liggéey kon daal euh, euh, ñi ngi sant di gërëm di ñaan li yàlla nañ ko fekkawal ay déwén déwén déwén déwén déwén te ci jëf rek euh, ñu dëpp ca ngërëmal sëriñ bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Balla Muxtaar ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kaddu yi rafet lool Euh, te tegg na ci taalibe te mel ne noonu lañ doon seenu ci waa académie nan liñ ci wax lépp dégg nañ ko dinañ ko gën a jàpp bu baax a baax euh, nangul nañ leen li nga xamante ni mooy talal loxo gi te ñun itam talal nañ ne ko bu baax ba ci njiital sëñ Afia Bousso dinañ ko gën a wéyale incha allah ba ni nga xamee ku baax ki ku tedd ki nga xamee moo fi toogal euh, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba di Cheikh Mamadou Mountakha te ngeen nekk ci keppaaram ni nga xam noonu la ko bëggee ak ni mu ko ko defee noonu incha allah Cheikh Ahmadou Bamba di Cheikh Mamadou Mourtada moo leen ko woon ñu nekk ay ndawam nekk ay taalibeem nekk eh, lépp nekk ci kooku nga xam ne di ndaw nekk ci école ba eh, di saytu li nga xam di xam-xam ñoom tey nag ñu ñëw fii ci jumaay tubaa fekk si invitation boo xam ne daal di Moukhaddamatoul Khidma moo leen ko invité woon ñu ñëw fekk si waxtaan yi eh, ginnaaw waxtaan yi toog nañu xewlu ginnaaw loolu nag am na kaddu goo xamante ni mu ngi war a jógee ci mudir Ahmed Faye mu wax ci turu daayira Ansaarud Din Ahmed billahi min shaitan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, mbokk yi ñuy déglu te duñu seetaan fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci shahru ramadan mubarak uh, di ñaanal sunu sëriñ cheikh mahamadul muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba mbooleem sumbam ak naalam ci diine mu mottali ko uh, te ñu ànd ko ak moom waaye di ko ñaanal itam ki nga xam ne mooy suñ Maam Mor Mbàkke ibnu cheikh mahamadul moom mi nga xamne mom la suñu borom tek ci eh, bopp njabootu Cheikh Mourtada suñu borom yagal ko fi ba ay nalam ak sumam lepp mu matal ko eh, di len nuyu yeen wa daayira Muxaddamatul Xidma bu bax a di rafetlu euh rawati eh, rawatina nak li nga xamne mom ngeen di amal ci wéru koor wi lu melni ay jataayu waxtaan yoo xam ne ama ama am solo la wax deug fa yalla ku fi tew rek bernde nañ la ci sa walu ruh waye benneen lañ ci sa walu madda kon da fay melni bernde ñaar la maddi yeen maana wi yan yooyu nak matna matalena Euh, li tax rek ku nekk xam ne ne weeru koor moom lu ci nit def rek tuyaaba la euh, kon nag su ko defee su ngeen jógee di ci dogal nit ñi te yonent bi waxoon ne képp ku dogal ku woor am nga tuyaaba ju toll josam te du wàññi ci tuyaabam dara euh, ngeen def ko lu tollook fanweeri fan ci weeru koor wi loolu seenu pay yàlla rek moo xam ne muy toll boo gisee itam daayira Ansaar Din sol ay dàllam ñëw wuy si woote bi dafay mel ni yëngum ak seen yëngu yëpp benn la ndax ku ci nekk rek euh, euh, taal bu Serigne Touba taaloon ca la ñu nekk di ko xambaat euh, di ko taxawu ba saa su nekk nit ñi mën di gën di jariñ di gën a xam Serigne bi di gën a mën mën di gën di jariñu ci moom te ku ne gis na ne bi la waxtaan yi tàmbaleeg léegi bari na ci doomu aadama yoo xam ne ci lañ gindekoo ci lañ xamee seen diine ci lañ amee taxawaay yu rafet ci seen diine ak pas-pas bu dëgër kon loolu nag ñi koy taxawee amal nañ leen sant amal nañ leen gërëm amal nañ leen jukkal ñu leen di sant bu a di leen gërëm di teg nuyoo bi ak cant ci loxol al imam suñu xaafe koy gunge ci liggéey bi euh, di xam ne daal Moukhaddamatoul Khidma wax dëgg fa yàlla lu mëntoon a ñàkk la waajtaayu sëriñ bi la mu waajal euh, ci yàlla gunge may leen ci ndam euh, lépp lu ngeen ci mébét ngeen am ko ñëw naa wuy si nañ daan woote bi ànd ceeg mbégte lool wax deug fa yalla bég nañ euh, waxtaan wi surtout nak waxtaan biñu fekke nga xamne mi ngi ñuy jangal nga xamne moy dund ci suufuk euh, awlama nan lay euh, dundé ak ñom muy lu am solo lo xamne lu jara jangal lu jara baye xel la kon jëlee nañ ci bind yo xamne inshallah taala mën nañ ko koo ñun ñëpp di leen sante di leen gërëm di ñaan suñu borom defal ñu ya يا مكرم day fi jaram kana وزار يا معي أخادي من قبل أزارا